ñaari fan des ñu tëj lii di hôpital la Le Dantec ginnaaw ba njiitu réew mi jëlee am ndogal ngir ñu defaraat boobule hôpital ñeneen ca liggéeykat ya daal nañ janoo ak taskati xibaar yi nekk tey ci suba di xamle ni ndaje bi ñu amoon niki démb ak jëwriñ ji yor wàllu wér-gu-yaram ñu ngi xamle ni ndaje ba jëlewuñ fa dara ndax ay promesse kese ba tax ñuy fësal seen njàqare El Hadji Abdoulaye di coordonnateur du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital moo wax ci seen kàddu ministre bi daal mënuñu fa jëlee dara joxuñu benn garantie li lim ñu wax daal mooy saa bu ñu xëyee ñu ñëw mu des simila ñooñu weesu nañ foofu ay promesse dépassé nañ ko bala ngaa war a tabax da ngay régler sooru personnel bi d'abord da nga koy régler ba pare boo ko régler ba pare nga soog a jublu ci tabax mais sooru personnel bi régler wuñ ko. waaye malade ñu hospitalisé fi xanaa doomu ne da ngay génn malade yi di leen sànni am na chef de service yoo xam ne d'accord ñu ñëng liggéey boo demee cancérologie boo demee chirurgie boo demee les diagnostic ñoom ñëpp ñu ngi liggéey c'est une minorité qui est waaw ñoom nag dañoo bëgg a profité pour def sabotage di génne maladie pour wan pour wan opinion publique bi que ne maladie génn nañ. délai de déménage bi dafa gàtt rawatina ñun dañu yor ay les gros malades les malades cancérologiques ñi nga xam dañoo am cancer chimiothérapie radiothérapie boo ko on boo ko interrompé rek day delluwaat ci jàngoro donc am na sa euh, am na yenn gros malades yoo xam ne service yoo xam ne mënu tux hôpital. mooy ñu ngi lancé appel askan bi di leen xamal ne komba bi seen combat la. Guy Marius Sagna mi njiitu FRAPP nekk itam député ñëwoon jàppale leen ci xeex bi di xamle ni li njiitu réew mi Macky Sall def jaarul ci yoon. sama teewaay fii nag mooy wane sama njàqare ànd ak syndicat yi wane sama njàqare wane sama naxar wane sama métit ci li nga xam ne moo xew fii ci hôpital Aristide la Dantec benn mooy dañoo d'accordul ci gouvernement Macky Sall li nga xam ne moom la ñuy def fii. bi ñuy tabax ay stade ay Dakar Arena ak ñoom seen kenn waxu fi dañuy jaay suuf pour tabax benn stade de cent cinquante milliards. donc ana lan moo war a tax fii ci hôpital Aristide la Dantec ñu ne dañuy jaay trois hectares pour tabax li nga xam ne mooy hôpital Aristide la Dantec ñu jàpp nag ne fan yii di ñëw ñëpp wax nañ ne fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at li mu askanu Sénégal dafa nar a yokk li mu askanu dakaar dafa nar a yokk dañoo soxla assiette foncière hôpital bi yëpp mu des ci moomeelu hôpital bi ndaxte fu askan naree yokk nañu jàpp ne euh, li mu maladie dina yokk tey jii nii pour am xaalis pour détourner xaalisu askanu Sénégal ak kii moo suufu Sénégal ak kii moo suufu askanu Sénégal ci lañu nekk pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu ñu ñu nar a dégg ne déguerpir nañ hôpital. président Macky Sall war na delloo si xelam c'est pas parce que dañ ko ne. munoo fi nekkaat ñetteel yoon candidat que ñoom ñu bëgg a gaawantu sarax saraxee suñu suuf que ñu war a gaawantu aakimoo suñu suuf que ñu war a ga euh, gaawantu jël suñu suuf jox ko seeni i jox ko seeni xarit jox ko seen i mbokk au détriment du peuple sénégalais au détriment de la santé des sénégalais au détriment de l'hôpital en fait mais sénégalais. lan moo tax sax mbir mi ñu def ko ci jamono joo xam ne ñu ngi waajal ay élections ndaxte dañoo jàpp tous les regards ñu ngi jëm ci élection et nous interpellons nous en profitons encore pour interpeller ki nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom mooy d'accord le parrain de la mafia foncière au Sénégal muy le président Macky Sall muy le commanditaire de tous les bandits fonciers au Sénégal. mu nekk situation bu doy waar bu ñu nemmeeku ci hôpital Aristide Le Dantec muy malade wala sax personnel ba ku ci nekk yaa ngay woote wàllu.